dal leen ak jàmm ci mbaaru Serigne fàllu industrie mbaaru Serigne fàllu industrie di menuiserie aluminium métallique nekk ci diwaanu Thiès ci quartier ñetti kàdd yomba xam lool di liggéey nag aluminium inox ak fer moo xam ay rampe la ay porte wala ay fenêtre dinañu liggéey it ay machine lu ci mel ni ay chessoir di wawal araw wala machine bi ñuy saafee gerte machine bi ñuy saafee kafe machine bi ñuy saafee darkase ak machine bi wawal cere di wawal soble di wowal caakiri di wowal araw ak séparateur bi nga xam ni mooy gar sankal bi te di ko ber mbaaru Serigne Fallou industrie ubbil na leen ay buntam yow mi soxla ay porte yu am garantie ay fenêtre étagère ay table ay fourneau indee ak lépp lu xeetoog moom mbaaru Sëñ fallu industrie dina def location bâche ci ay prix yu xéewale maxfiratan li kulli xayrin mutmina wa fi li muslimin wa muslimam woo leen ci 77 951 69 21 wala ci 76 508 23 19 wala nga dem ba diwanu ñetti kaddu Serigne saliw ak équipe bu dynamique ma nga fa di len xaar jaratul genn ties lepp am na fi ak mbaru Serigne Fallou industrie seen njàkkare jeex na يا من باستعاذ خير الانبياء من اللعين الخب شر الاقبياء سلي سميت جالبة المراغب في اجل